sant yàlla tey ci bis bi nga xam ne day bis bu am solo ñu di ko tuddee feetu premier mai di fête internationale des travailleurs te ñun ñu bokk ci ndax nekk ay acteurs surtout acteurs yu am solo muy acteur santé donc bokk ci bànqaas yi liggéeykat yi ah ñu nekk ci district Mbacké euh, wax fa dëgg ci euh, mën nañ ni ci taarix xaj na lii gulet ñu taxawee ko nii ci premier mais bi dajale mbooloo mi defar benn mémorandum boo xam dafa tënk jafe-jafe yi nga xam si moom la ñuy dund ci centre de santé bi ak district bi pour ñëw jébbal ko kilifa gi jébbal bii ñu ko jébbal kilifa gi nag jébbalu yaakaar la ndax comme moo fi taxawal toogal nguur yilif ñëpp ci département bi kon lii ñu ko jox dañ ko ko jox ngir ëllëg ñi ci war a toog toog ci euh, saytu ko càmbar ko ba lii nga xam si moom lañ ci tënk ñu mun cee am ay solution yoo xam si day indi euh, dal ak a euh, ci biir centre sant bi ak district gu ba tax na kon mémorandum bi comme ni ñu ko waxee rek sànq jafe-jafe yi nga xam si a ah, moo ci nekk mi ngi jëm ci li ci njëkk mooy wàllu Euh, ressources yi parce que ressources yi mooy liggéeykat yi ndax wolof Njaay dafay wax ni benn lam du yëngu kon liggéeykat yi lépp loo xam ne si wax dëgg yàlla dañ leen ko war a taxaw pour ñu am xel mu dal mën a liggéey ci xel mu dal jëf li ñu war a jëf ci centre bi ak district bi yëpp loole dañ cee war a am taxawaay te kenn waru ci am taxawaay loolu kilifa gi nga xam ne moom lañ dégg centre kon ñu seetlu ni wax dëgg yàlla am na nag ay jafe-jafe jafe yi nag ci jëm ci personnel bi wax nañ ko tënk nañ ko muy sage-femme bi nga xam maîtresse sage-femme bi nga xam ne titre bi moom moom kër gi nga xam si moom la war a dëkk te boobu ba tey ban ko nommé ba tey wax fa dëgg yàlla kër googu ba léegi sage-femme bi maîtresse sage-femme bi mënu ko cee jot loolu bokk na ci ponk yi nga xam ne tënk nañ ko pour que ñu indi ci saafara ci ñu mu gën a gaawe ba maîtresse sage bi mën a jot këram nga xam ni boo soxlaa di nga mën a dem rapidement ci moom kat mën a jotanteek moom bu ko defee ah mu mën a ñëw dox li war a dox ci biir centre euh, ñu gis ni tamit agent yi dafa amoon ay commission paritaire pour ñu war a wax ci seen avancement muy lu am solo nag mais danoo gis ni foofu dañ koo defe ci kumba am ndey kumba amul ndey ñaari vitesse ñu gis ni am na pàcc boo xam bi daal ci biir district bi seen not yi moom gaaw na lool te noté na leen beneen pàcc bi nag moom xaj na seen sël xaj na défaut mooy seen nekk ak taxawaay ci biir syndicat bi ñuy wax SUTSAS ba tax boobaak ak léegi seeni not di traîner di taxawaalu ba far sax ñu ci bëri mujj ñoo jàll euh, ci commission paritaire yooyu pour que ñu mun a avancer loolu nag doon lu doy waar ndax ah, ah, notation personnelle obligation la ci liggéeykat bi kilifaam noté ko njaatigéem noté ko mais danoo noté ñi bàyyi ñee muy jëf joo xam ne rafetluwuñu ko dañ koy ñaawlu ba fu ñaaw di yem te loolee lépp kilifa gi rek moo doxalee noonu te du doxalinam séntuwuñu loolu ci moom parce que moo njaboote ñëpp moo ëmb ñëpp. ci post de responsabilité yi gis nañ ni loolu it wax fa dëgg yàlla kenn ku ci nekk danga nga ci war a am mérite parce que boo nekkee ci bërëb bi dafa am looy xaar ci ay promotion yoo xam ne si ay poste de responsabilité yoo xam mi ngi ci biir kër gi. mais kenn warta jël nit ca biti di ko ko jox mais war na seet ci biir liggéeykat yi ñi ko yeyoo ñu jox la ko waaye ñu bañ koo def nag ci par parloo mais ñu def ko ci mérite te ñi am na ñu ko mérité doon ay ndaw ne ci biir centre bi donc ñoo jël nag ñoo xam ne ki daanaka tey mun na ni dem nañ retraite nga bëgg leen jox ay post de responsabilité bàyyi ndaw ñi nga xam nag danoo toll ci wane seen bopp wane li ñu mane te wax dëgg nag nguur gi daf ni nekk fi di defal promotion retraité yi mais nag sinon dafay def promotion jeunes yi nga xam ni ñoo tolloo carrière war a avancé ci seen cursus donc loolu nag tamit doon na ci poñ yi ah loo xam si mi ngi ci biir centre bi te ñu bëggoon ñu indi ci ay saafara ci ni mu gën a gaawe ba ñoo ñu retraité wax fa dëgg ñu sant leen gërëm leen ah jox leen seen wàccuwaay ñu dem ci jàmm ak salaam mais ñi nga xam ne tamit ay ndaw lan te dese doole ak kattan am carrière ñu mën leen a promouvoir jox leen poste yi ñu mën koo liggéey ci anam yi mu gën a euh, euh, jekke même aussi ki nga xam si tamit mooy kilifa gi ñu dénk ko ñun jàpp nañ nit wax fa dëgg yàlla macha allah li mu waroon def yëpp def na ko médecin chef de district li mu waroon def yëpp def na ko carrière def na ko ba yegg si macha allah ci retraite ak jàmm loolu nag ñi ngi koy dénk kilifa yu autorité administrative yi pour que nag loolu it ñu taxaw ci parce que nag am na ay ndaw yu médecin yoo xam ñi ngi fi war a mën a nag continuer liggéey bi nga xam si moom la moom la def ba fii macha allah am na lu mu fi def am na lu des mais nag dafa war a bàyyi keneen ñëw nag continuer liggéey boobu taxawal ko wéyal ko donc loolu it wax fa dëgg dañuy xaar autorités yi liñ ci war a def ñu def ko ci